jeunesse et sport ñu xam ne tey ji askan wi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir base bi askan wi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir commune bi war nañu gën a tamit saytu gën a xippi seen bët gën a xool loolu dafay am lu muy dimbalee ki nga xam ne moom moo jiite coalition bi te loolu sant nañ ci yàlla ci biir coalition gëm sa bopp euh, sant nañ ci yàlla yàlla nañ yàlla lafal cat ah, ah, dinañ ci dinañ ci ñëw gën ko gën ko xóotal alors euh, docteur yow nga jiitee alliance pour une nouvelle direction euh, gulet nag ñu gis mouvement citoyen yi itam ngir fas yéene samp seenum dënd bokk euh, ci élection yu ñu jëm c'est vrai que ne aujourd'hui même parti politique et coalition yi boo xoolee ci seen ay coalition gis nañu ne euh, présent euh, présence su mouvement citoyen yu bari bari ñu ngi ci biir comme quoi ñoom wane nañu seenu wane nañu li ñu mën ak li ñu li ñu capable def moo tax ñu leen di approcher souvent yéen ngeen di liggéey wala ngeen fas yéene liggéey ci coalition boo xam te dafay ëmb uniquement mouvement citoyen pourquoi ce bëgg a euh, samp seenum dënd ci élection ni mu jërëjëf euh, Mohamed ci question bi euh, balaa may tontu question bi damay nekk sur la même lancée que sama na sœur Nafissatou di naqarlu li nga xam ni actuellement moom la ñu teg ki nga xam ni mooy le président buggan qui est un chef d'entreprise ñëpp xam nañ Bougane chef d'entreprise la Bougane il pèse presque 600 employés ñu mel noonu je pense que état bi daf leen war a protéger waru leen bundu xataal comme ni ko Nafisatu waxee rek Bougane am nay employé am na ay groupe de médias la yor ñoo xam ne dañu yor ay famille di fi liggéey donc l' état a le devoir et de protéger l' de Bougane qui pèse 600 emploi donc loolu tamit dama ci bëggoon ñëw di ñëw tamit ci gàmm gi nga xam ne ñoom moom la ñu dëgmal gàmm gi nga xam ne le 18 la di ñaan yàlla ñu egg si ci jàmm ci bisimilahi rahmaani rahim def ko ci alxam euh, eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ñaan yàlla aussi lépp lu ñu ñaan ci gàmm gi yàlla nangul ñu ko si réew mi am jàmm Sénégal am jàmm ñu dem ci élection yu yu apaisé yoo xam ne ku ci nekk lu la yàlla jox rek nga xam ne loolu la yàlla jox ñun nag euh, coalition citoyenne lañ tudd tur bi dama koy teer fii tey parce que joxuñu ma ndigal pour ma pour ma lim tur bi mais c'est une coalition citoyenne mhm. boo xam ne man ci laa bokk man je suis le président du mouvement alliance pour une nouvelle direction bi mhm. nga xam ni euh, mouvement la boo xam ni day yëngu depuis 2017 ci ci ci ci askan bi mhm. maanaam lépp li nga xam ne askan bi mi ngi ci ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu environnement bi ñun su suñu mouvement dañ ciy dañ ciy yëngatu avec famille yi ñu àndal avec jeune avec euh, jeunes yu ñu àndal mhm. léegi da ngay xool Mohamed léegi boo nekkee sa gox mhm. li nga xam ne maire bi moom la war a def population bi ñooy jóg tey ñëw na la ah docteur su lamp bi baaxul bëri na ci ay gox absolument mhm. loolu laa gis docteur ndox mi day taa. xam naa bàcc dina ci ñëw leeral ko garab gi non léegi dama dama wax les politiques ont échoué. parce que léegi ku ci am problème dootoo dem ci maire bi da dem ci ki nga xam ni moo nekk ci gox bi amal njëriñ gox bi. di def ci gox bi ci kooku ngay dem pour mu régler sa problème en tout cas man fi ma dëkk cees loolu moo fa am zone bi ñu dëkk da gis làmp yi des fois du ñu am éclairage du am éclairage koñ yi day taa assainissement ku fa jóg rek dangay jubal ci benn nit boo xam ne c'est un citoyen dëkk ci koñ bi moom ngay jubal pour mu defar loolu ñooñu nag population boobu nga xam ne lépp li nga xam ne day manqué foofu ñooy ñëw ci ñooñu di leen ko wax ñooñu ñoo bëgg tey ñun ñu mel ni ñun nekk tey ay maire nekk ay conseils municipaux nekk ay président de conseil département population boobu ñoom ñoo jóg ne ñun dañoo war a jóg taxaw pour régler seeni problème parce que ils ont vu que les politiques ont échoué ngeen baal ma nga baal ma madame nag <laughs> les politiques ñoo pourquoi mouvement citoyen yi bëri léegi mhm. éclore bëri mais ça que les politiques ont ont mhm. man sama bopp laa koy xool man mosuma yor nomb nomb tànk mais des damay def comme li les maires Thiessois yi def loolu loolu la ñu dajale ci benn coalition boo xam ne damay teer la non que weekend bi lañ koy euh, mm. la ñu la ñu fësal noo bi ñooñu la ñu dajale ak ay ñoo xam ne ay responsable départementalu parti lañu mais dañoo génn seen parti ñëw bokk ci suñu coalition muy une coalition citoyenne mm. bu ñu waxee coalition citoyenne moom mooy ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci gox ba am fa mm. njëriñ

coalition yu mag comme ay Benno Bokk Yaakaar comme ay. coalition wallu wallu ah. wallu et mais dama la bëgg a wax ni nit ñi nañ fàttaliku aussi le mode d' a changé. Mhm. maintenant il ne n' appartient plus au parti. Ah, léegi képp mhm. xam bu ñu gañee kan mooy nekk maire. Mhm. le mode d' élection a changé. bien léegi képp ki nga xam ni mooy jiite list bi. majoritairement moom mooy doon le maire kooku la nit ñi di votel donc il léegi dootul. élection yi gagné nañ ko chef de parti bi mooy jël ku ko neex mu teg ko foofu ne kii moom mooy diriger askan bi te bu te fekk askan bi sax duñ ko xam. Hmm. léegi dañuy gis conseil municipal boo xam day nekk ci benn parti mais euh, day nekk ci benn gox day làqatu waa goxam. Hmm. kenn du xam ni kan mooy conseil municipal bi. Hmm. bu problème amee nii day làqatu kenn du ko xam sax donc ñu mel ni ñun ak ñu mel ni sunu naataangoo yi. ci ñun la dem. pour ñu régler les problèmes ñooñu nag ñun nag léegi. ak ñu ñun ñoo dajaloo nag nekk ci benn coalition. pour a changer les a yàgg na depuis depuis des années mhm. gestion collectivité locale yi baaxul te ñun on a constaté ça mhm. y a eu des failles donc dañu bëgg léegi ñu changer. jox ko ñi nga xam ni c'est des citoyens yoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi. ñoo xam ni politique ñu defuñu dara ñu jox leen ñu essayer leen. loolu tamit dafa jot quoi parce que les politiques quand même. man je trouve que ils ont échoué quoi. absolument lu am solo na Nafi euh, dañuy ñëwaat ci yow euh, laaj bi ma la am bëgg a am envie laaj mooy aujourd'hui yaa ngi ko wax sànq am ngeen plus de cent et quelques maires PDS miin na déjà euh, élection moom ndax yàgg na dem élection ak ñi ngeen àndal sax ci coalition wàllu également miin nañu.